Yeah.

defar gaal di jël ndaw yi di leen convoyé ci Barça wala Barsax nañ déglu vidéo bi dellu si ku fa nekk mën na faa woote te bu ko jaree sax dinañ ci teg ay neexal pour ñi nga xamante ne ñooy yoole ñi bëgg a dem. kon ñoko ko déggandoo muy ay cadeau yi nga xamanteni président Bassirou Diomaye Faye lancé nako ginnaw bu mu lancé won li nga xamanteni moy lanceur d'alerte bi yoon dal ben phénomène la lancé muy yolé képp ko xamanteni gis nga ben convoyeur muy yóbbu ay ndaw yolé ko soko jaré sax dinañ la jox ay neexal mom mi di président de la république Bassirou Diomaye Faye dafa melni bi mu démé fofu ci Mbour pour présenter li nga xamanteni moy ay jaalam ci famille victime yi ngir drame bi nga xamanteni amna dimanche bi ñu génn doon ben occasion bo xamanteni dañ ko annoncer ba nopi dal di mettre en place li nga xamanteni dal moy ay sanctions yu sévères jëmale ko daal ci ñi nga xamante ni yoolee nañ leen ginnaaw loolu daal dinañ la jox neexal bu bëre moom président dafa tenir daal daal di sukkandiku ci benn strike boo xamante ni amul benn yoon yi nga xamante ni dañ ko tuddee ay vendeur d'illusion daal di leen maintenir jëmale ko daal ci déclaré li nga xamante ni poursuivre na ko ba noppi daal di fàttaliku ay bés yi nga xamante ni daal dinañu conclure benn opération tuddee ko li nga xamante ni daal mooy jokkoo ñu mëne ko conjointement jëmale ko daal ci li nga xamante ni dina toll ci weer parti yi nga xamante ni mooy gendarmerie ak police ak li nga xamante ni mooy armée mu doon benn opération boo xamante ni dina permettre ñu déjouer bépp projet migratoire départ boo ne impliqué na six cent quatre jeunes ñi apprendre leen ci moment bi nga xamanteni ñi ngi doon waja départ muy ay preuves yo xamanteni li du gouvernement bi dina ko poursuivre jëmele ko dal ci relâcher li nga xamanteni ni moom la ñuy xeex jëmale ko dal ci vendeur d'illusion bi mom président de la République Bassirou Diomaye Faye également dafa woté ay responsabilités collectives en tant que li nga xamanteni ni chef du gouvernement que bép parent bu crucial na nga fàttaliku say ndaw que li nga xamanteni ni réew mi moy li nga xamanteni ni ñom ñoko diriger dañ ko war bâtir ak ay citoyens yo xamanteni ni dañuy am gëm-gëm jëmele ko ci changement bi nga propre réew la ba noppi daal di œuvrer daal di def souvent mu doon ay péril jëmale ko daal ci seen dund ginnaaw loolu a soit ñoom seen xel muy góor di jigéen di mag di ndaw ñoom ñëpp daal ñu ci li nga ñu seen ci projet bi nga xamante ni dañu Sénégal ginnaw bi nga xamanteni lepp luy yaakaar bo xamanteni am nañ ko ci capacité dañ ko wara transformer en même temps jëmale ko dal ci ben xar kanam bi nga xamanteni suñu réew da koy am ginnaw loolu nak ki di président bi dafa dévoiler ay mesures yo xamanteni yu concrète la nak lañuy def pour xex li nga xamanteni dal moy fléau bi du dara lu instaurer ay numéro vert yo xamanteni dañ koy mettre en place jëmale ko dal ci ben prime encourager képp ko xamanteni dal yolé nga ki nga xamanteni moy vendeur d'illusion dinañ la jox ay neexal jëmale ko ci bëss yi ñu jëm gouvernement bi dina mettre en place ben numéro bo xamanteni bu essentiel la jëmale ko ci population bi daal di engagé wu activement jaarale ko ci xeex lépp lo xamante tay mo su xol fléau bi nga xamante dañ koy dénoncé jëmale ko ci convoyeur yi ginnaw bu mu ko conclure moom président Bassirou Diomaye Faye mi ngi woo ndaw yi dal ñu ag ci li nga xamante dal moy patience ba nopi daal di teg li nga xamante moy yolé alors que amna ñen ño ñoo dal da fo la jël ay mesures pour régler saafara problème ndaw yi mais du yolé moy régler li nga xamante manam ñi nga xamante ni dañoo bëgg dem